bokk jullit yi gannaaw bu ñu santee sunu borom bi jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel te di leen balu àq di ñaan sunu borom yàlla nu may nu fekkewaat ko déwén yu bari kenn bañ a manqué gannaaw nañu ko bokk xam ne tey bis bu màgg la ci nun jullit ñi di bis bu rëy ci lislaam di bisu tudd yàlla ak fàttaliku xéewali bi xéewalam yi nga xam ne kenn mënu koo takk di bis boo xam ne dañu ci fàttaliku sunna sayyiduna ibrahim alayhi salaam di ci fàttaliku nattoom ba ak muñam nga mook doomam ja dinañu ci jànge ne muñ natt bu jóge ci sunu borom fay nga fii lay tàmbalee ci àdduna soo àndee gëm yàlla gu wér sayyiduna ibrahim alayhi salaam dafa gëm yàlla nangoo muñ nattu doom ja ismail alayhi salaam gëm yàlla nangoo muñ nattu sunu borom nattu leen ba mu wér ci ñoom te mooy mu sant ibrahim mu rey doomam mu nangu doom ja nangu ñu rey ko ci gëm yàlla muy nattu bu rëy nag inna haza la wal balaaul mubin waaye fayu muñ nattu àdduna la ko borom bi tàmbalee sayduna ibrahim alayhi salaam gannaaw ba mu nekkee yonent xaritu sunu borom la bokk ci juróomi yonent yi gën ci yonent yi doom ja itam nekk yonent kon bokk yi nattu lu mu diis diis muñ mën na koo dékku ndax nattu bu diisee ne ñu digal la nga rey sa doom bariwul a am ci àdduna kon kër Seydunaa Ibrahima alayhi salaam gëm yàlla gu ànd ak ragal ko ak nangu mu nattu sunu borom saxoon na fa ndax dañoo jaayan seen adduna jënd ko seen alaaxira moo tax boroom bi tagg ko ci alquran karim ay yooni yoon ba digal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu topp yoonam ittabih millata ibrahima hanifa ku bëgg am noflaay ci àdduna ak ëllëg ci alaaxira na nga fexe ba ñett jikko yi nekk ci yow ba da génn adduna te mooy gëm yàlla ragal ko ak nangoo muñ koo fi gis mu yor cër bu ñuy xemmem mu jóge ci sunu borom jikko yi moo ko ko may soo góor góor góor noonu ba ñetti jikk yi bokk ci say jikko bul ñee kenn ndax sunu borom jox na li gën ci àdduna kon yéen ndaw ñi na ngeen bàyyi xel bu baax ci tontul Seydina Ismaayil doomi Seydina Ibrahim la mu lu mu tontoon baayam ba mu ko ne digal nañu ma ma rendi la mu tontu ko ne ko ifal ma tuumaru sa tajiduna insha allah min as-saabiriin jëfal li ñu la digal di nga ma fekk bu neexee sunu boroom ma bokk ci muñkat yi loolu war nay nekk tontuwul doom ci woy juram saa bu la digalee ndigal lu dëppoog ndigalul sunu boroom ndax ndigal lu bawoo ci bànneex nag moom mooy ko du wàññi dara ndax borom bi lañu war a topp ndigalam te rafetal jëm ci woy jur yi waaye borom kër bu ne kilifa gu ne war nay roy seydinaa ibrahim ci jikko ba ko yilif yilif ko ci ragal yàlla ak jikko ci rafet rafet jikko mënees na cee yilif jur gi sax waxuma laa nit ñi bariwaana kook jafe-jafe yamu am ak ñamu yilif ca moom la ndax jikkoom ku ñaaw jikko matul kilifa ku bëgg a yilif say nawle da nga leen di jàppe ni sa jëmm bareen bi mooy nanu sax ci di fàttaliku sunu borom ci xéewalam yi ak teraanga yi mun a defal teraanga bi mu ngi yam ci mboolem lu sunu borom bind doomu aadama moo tax mu bind ko te moo ko ci gënal itam kon noonu moytu noonu moytandiku noonu bi nu bëgg a yàqal teraanga jooju muy seytaane sab noonu nag soo bëggee mucc ci moom bul dëkk ak moom nun nag waxuma la dëkk ak moom li ëpp ci nun dañuy dem fekk ko këram tey muslu ci moom bunt yu seytaane di jaar ngir yàqal jullit bi bunt yu bari la waaye bi mu ëpp li muy jaar di yàq mooy làmmiñ Sëriñ Tuubaa nee na làmmiñ mooy yées ci cir yi waaye moo gën ci cër yi ne suñu su ca baree lu ñuy tudd yàlla moo gën ci cër yi waaye yonante bi sallallahu alayhi nee na ñett ñi gën a tar mbugal yamal xiyam bokk na ca ku daan booyalu làmmiñam lu ko neex wax moo tax mu wax ne ku noppi mucc man samata najaa Sëriñ Tuubaa nee na bari wax dafay wowal xol di yàq diine di wàññi wërsëg kon soo seetloo yii ci ko ci sa bopp xamal yaa ngi wax lu sa yoon nekkul te ca te gën a bari safara yonent saa sam nee na làmmiñ moo leen fa dugal moo tax ku wax feeñ ku wax sa jikko yi biir feeñ ku wax ñu xam ni nga mel xam sa yéeney xol te jikko nag ci lañuy rawante ci lañuy gënantee itam ku la gën jikko moo la gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jikko ju rafet moo gën a diis ci mbooleem di diisal balaa si ëllëg te bokkul nag rafet ju te bokkul ci rafet jikko nag di xawi awra nit ñi di nëbb say awra bokk na ci yéenu sëriñ bi di fàttali ci mbindam ne bul tudd awray kenn ndax nit ñi am nañu làmmiñ te xam nañu say awra lisaanu ko laa taskur bii awratam riin fa hindaka awraatun wali naasi alsunu bari na ñooñ seen làmmiñu bopp moo feeñal seeni seen awray biir ndax sëriñ bi nee na noppi dina nëbb ak réer ak bokk ci askan wu bon ba ca des mooy soo bëggee bokk ci ñi jiitu xoolal ñi la jiitu nga waxu topp ci ñoom te bañ a geesu roy ku la gën dina taxa bokk ci ñi gën bul am soxla ci ku la ëpp la alal ak njaboot ak ku la ëpp gànjari àdduna ndax yooyu suma borom ci coobareem la koy séddalee waaye bul nangu mukk nag ku la ëpp jom mënees naa dimbale ku nekk na ba mu des ku ñàkk jom te mooy ki nga xam ne bu nit ñu fexee di njëkkante mbaa mbaax fa sunu borom mu toog di leen yéem ku ci ëpp la mu defe takk ndigam di nga doxali yitteem mooy tax mu mel ni moom royal nit ki ngir mel ni moom yéem nit ki du tax nga mel ni moom moo tax Sëriñ Tuubaa roy yonente bi sallallahu alayhi ci la rawee moroomam ne yonente bi sallallahu alayhi wa lu mu bañ man loola laa bañ lu mu bëgg loola laa bëgg wa maa yaabaahu aabaahu ci mbir mu nekk moo tax suñu wax nit ki mu doylu àddunaa tax ndax àdduna loo fi am soo ko doyloo mu doy waaye yamal xe am fuqale la laaj ndax loo fu yóbbaale ci mbaax xeeb ko su dee tooñ nag lu mu tuuti tuuti diis ci yow borom bi nee tooñkat yi bis pénc su ñu amoon mbooleem li nekk ci kaw suuf te mooy àdduna ak li ci biiram ak lu ni toll dinañu ko nangoo joto te mucc ci mbugal ma ndax lañu nekkoon di ko jot ci yàlla ba dëgg ga feeñee wuute na ak la ñu jortoon wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun topp say bànneex tey rafet jot mooy waral rëccu ëllëg bokk yi àdduna su xatee jamono di bëgg a jeex defal jub ak baale ak jéllale ak kawe yitte muy sa yitte waaye soo dul baale tooñ te ku wax nga tontu ko doo sottal dara te saw doxin du gaaw xamal ne baale ak tooñ néewi wax ak bari njariñ mooy tax a nekk sa ngub sag maas néewi wax soo àndee ak njariñ dina ñot di cofeel ndax xëccoo àdduna képp moo sabab noonoo ko bari ci bénj mi lu bari ci nit ñi soo xëccoog ñoom àdduna ñu feeñal sa ayib soo leen bàyyee ak àdduna ñu waxtaane sag mbaax moo tax ku faatu ñu waxtaane sag mbaax ak ka nekk ca kaso ba ak ki tawat ba ñu ñàkk ci moom yaakaar ndax ñett ñi néew na nga dégg ñuy waxtaane seeni ñaawteef dara waralu ko lu may li ñu xëccootul àdduna ak yow moo tax ki la bëgg a gën bëggul di la gis ngay xëy ci toolu mbaax bët bu set te jikkoy sang mooy jikkoy waa aljanna aljanna amul mbañeel wana sax naa maa fi sudóorihim min xillin déggoog nit ñi ci seeni jikko nag yombul waaye dangay ngay ànd ak ñoom ci sa jikko ndax ndigalul borom bi ndax kiy def su la gisalee lu rafet nëbb ko su la gisalee lu ñaaw siiwal ko su la gisalut lu ñaaw sosal la ko kooku neexu la nekkal soo dul muñkat doo mën a nekk moom waaye bu ñu la yàqal mukk rek sa jikko ji rafet te kuy def lu la borom jikko ju ñaaw lebal nga fay ko ko ngeen yem dénkaanab sunu borom ci nun ñëpp nag mooy loo tanee sa mbokk nga dimbali ko ca li wa ci laa ndax loo bari le am na ku ko néew néewle loo ëpp ëpple say nawle am na ñu ko doon sàkk ba nga juddoogul ba tey jii te amuñu ko mu te leen ticc kon du sag njàmbaar coobaree borom bi la àdduna ku fi nekk li nga jeexal sa dund moom ngay añu ëllëg ku rafetal sa bopp nga rafetal ku ñaawal yaa koy añe su ëllëgee ina ahsantum ahsantum li anfusikum waaye way ni asaxtum fala lu waay def boppam loo bañ mu topp la tàggool ak moom ni ñu koy waxee jamono ju nekk adduna moom dëddu na wane na gannaaw te du dellu si mukk loo nekk ci yow ci jikko te nga bañ mu bokk ci sa bagage barsaq tàggool ak moom tukki boo xamul kañ ngay dem dangay ngay waaj toog di digloo te yor bagage yu lay diisal bul yor lu ñuy tere boolu nax sam xel ci doxinu àdduna bokkiwul ak doxinu àllaaxira joxeb sunu borom tënkuwul ci ki ko gàntul ak ki ko nangul su dee àdduna ne ñépp lay jox te di leen dolli ñi ko nangul ak ñi ko gàntul kullan nummidu haulaai wa haulaai min ataayi rabbika wa maa kaana ataawu rabbika mahsuura àdduna ñépp lay jox waaye ci coobareem nag mu tekke nag unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din mu ne xoolal ni may gënale ñenn ñi ci kaw ña ca des ñii yor lu ne gàññ ba xamuñu nu mu toll ñee yor tuuti ña ca des bala ñoo lekk dañu leen dimbali xoolal ni may gënale ñenn ñi ci kaw ñi des ñee bu ñu feebaree mënuñoo jënd ordonnance junni am ñoo xam ne bu ñu feebaree avion la ñuy gaare te ñoo ko moom dugg ci dem bitim réew faju ju dellu si unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din te ne bis penc wala laaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdila nee na giiñ naa ni bis penc fa la gën a lante ka ak daraja yi gën a kawe foofa nag sa jëfi àdduna lañu la fay fay lu mat a bàyyi xel la te lu mat a waajal la bari waa na kook kenn du ko limaale ci daraja fii ci àdduna ndax ñàkk ak woyof mbubb te ëllëg ca buuri aljana ya lay bokk ak koo xam ne fii ci àdduna wala ñoo xam ne fii ci àdduna ñooy borom daraja ya yu kawe ñooy buuri àdduna yi fu ñu jóge ñëpp taxaw ba ñu jàll te borom Tuubaa borom Tuubaa nee na golo lañu ñu tollal daraja bis pénc àdduna du nattukaayu ëllëg dañ ci bàyyi xel bu baax ñoo ngi jégalu ñëpp di ñaan sunu borom yàlla nañ fi teewaat déwén bu nuy dellusu yàlla na ku nekk yokk ba yëg ko te buñ fi yàlla buñ fi àndaale bàkkaar yàlla na sunu borom suuturaal xiir nu ci li mu bëgg te dimbaleenu ba may mujj rafet te lépp lu muy tere yàlla bu mu na ci gis yaxfirullahu lii wa lakum wa li saa'iril muslimiin amiin jërëjëf